di ànd ak euh, sama jàmbaat euh, yow Babacar ngeen baal ma joxal ma joxal ma maam maxtaa mi ngi fiy fàtte document yi ca donc euh, mu ngi noonu ñu daal di ànd ak sama jàmbaat ñu dugg ci li nga xamante moo di santé animale noon la de. maa xaw a jagati moom dama sañ a bañ a ñëw rek ah, mais ndax kaga bi moom tey moom ma ñëwul moom xam naa ni 4 gaillards lañ may def maa wax lii <laughs> mais tane nag jàmm ah, euh, def euh, xam nga tey euh, nit nit ñi di jagadee hmm. yi noonu la ñuy jagadee nit nit ñi di feebaree xar yi noonu la amee ay jafe-jafe tey nag ñu dalal ci Cheikhou Diakité hmm. nekk suñu frère ah, hmm. nekk suñu frère nekk ci milieu élevage bi naam étudiant la mais di def intervention information yu am solo moo tax ñu ne kii daal euh, nañu ñëw andi ko fi pour fas yéene waxtaan ak moom xam-xamam mhm. euh, ni mu màccee ci milieu vétérinaire bi waat que ñu ngi lay bàyyi nga dalal ko ayca comme niñ ko dalalee woon rek euh, tout à l'heure ah Cheikhou mhm. muy mu nekk étudiant en li nga xamante moo di vétérinaire mhm. donc dañ lay bàyyi rek mbay nga dugal question après ñu mën a waaw aca faat gaan xam nga sama gan la te gan gi moom dama la koy yéene trop ah <laughs> da ngay naan café. c'est que avocado de bu ñu dooru quoi xam nga avocado de dañoo amul passé waaye moom moo waroon njëkk naan. ay la daal avocado de moom nañu moom nañu daal. ay ca mbay. aja mu ngi noonu <laughs> euh, tey seexu euh, nga nekk ci milieu élevage naam euh, sànq wax nga ko. étudiant nga ba tey yaa ngi université di continuer sa jàng mais yaa ngi def ay intervention te loolu daawuñu ko faral di gis lu bëri lan moo la dugal ci intervention yi ngay def. balaa may doon euh, di dem école di jàngi vétérinaire suñu kër dañ doon dañu yar ay xar quoi. Mhm. léegi comme que sama grand frère euh, dafa xaw a bëri xar tuuti. léegi genre chaque fois vétérinaire dañ doon ñëw di traité. léegi avant may dem veto commencé woon naa di piqûre affaire yooyu noonu. xam nga léegi bu ma commencé veto rek dès première année yi commencé woon naa di exercer léegi am affaire yu bëri yoo xam ne ak riir naa ko. moo taxoon may ma teel a pratiquer. moo tax yéen mhm, moo tax. lii passion moo ma dugal ci xar yow passion. moo la ma dugal ci vétérinaire waaw. Mhm, mhm. Euh, yombul benn jeune nga gis ko mu jàng ba am ay diplôme ne damay dem euh, euh, dem defi vétérinaire. faat nga souvent du ci bëri dama ciy waxtaan ak étudiants yi ba ma ciy wax daal pourquoi pas mënoo leen di dem defi vétérinaire. mais c'est très rare nga gis benn jeune ba engagé comme moom. dem defi ko. bi ko defee ba léegi. tey jii yaa ngi def ay intervention yoo xamante ni ku la gis day teg ni docteur vétérinaire la mm-hmm. ñaata at nga jàngagul instant yi maa ngi ci sama juróomeel ak waaw te pay pareegoo nii. waaw des na benn at rek mooy des nii. un an moo la dese. waaw un an moom mooy dese incha allah. waaw formation bi euh, formation en vétérinaire bi six ans six ans. lay lay lay duré six années d'études la waaw. d'accord boo boo boo génnee après nga am sa diplôme ñu reconnaître la nga nekk ah. vétérinaire. waaw après waaw boo teesee bu nga mun ubbi cabinet ñu reconnaître la. Hmm. mais à partir de par quatrième année rek. yow hmm. dans ce cas mun nga commencer pratiquer. ok hmm. ok d'accord Mbaye loolu loolu am na solo. parce que euh, li nga xamante moo di formation vétérinaire. ne mm. déjà xam naa ne peut-être ñu bëri jàpp ñu woon ne jàpp ñu woon ne am na mm. et que su amee aussi euh, mm. jàpp ñu woon ne comme comme cursus scolaire yi ñuy faral di dégg comme nga def formation en journalisme wala nga def santé di nga def sa thèse def sa licence après def sa doctorat yooyu noonu yëpp waaw da ngay def thèse am na waaw da ngay def sa thèse def lépp comme ni tey yow euh, ñu man bac s laa am. Mhm. après ñu ñu oriente ma foofu orienté wu ñu ma sax da ngay déposé quoi. Mhm. mais boo déposé bu la jëlee après nga commencé année yi. Mhm. ba pare aussi bu dee Sénégal mënu jël moom moo lay fayal. Hmm. moo lay fayal aussi di la jox bourse. nga mun di jàng dans des conditions. condition yu baax ngay jàng mm-hmm. mm. ah. waaw waaw c'est c'est normal. nag mm-hmm. lu lu lu carrément moo tax war ngeen mën a jàng. si waaw waaw du lu saturé waaw. mais nag expérience bi parfois yaa koy acquérir yaay dem ci ay cabinet di ànd ak nit. pour mën a am expérience bu doy boo xam ne mu ngay pratiquer si terrain bi. Mm-hmm. très bien macha allah. balaa ñoo ñëw ci terrain boobu sax euh, tey jii Fatou dañuy taxaw tuuti ndax euh, vétérinaire yi euh, sélection bi mooy sàng mu ngi koy dafa néew torop Mm-hmm. état bi foofu moom dañ leen ci interpréter euh, directement am na ñoo mm-hmm. xamante ni dañ koy bëgg di def mm-hmm. am euh, bac S mais euh, pour ñu sélectionner leen nombre bi ñuy jël dafa tuuti mën nga ñëw fàttali kon par exemple ñaata personnes la ñuy jël waaw en général dix personnes la ñuy jël wala vingt waaw ah, ah, sur combien ah waaw non suñu déposé day bëri ñu déposé day bëri ah. boo xoolee suñu année jëloon nañ cinquante mais ça ñu jël cinquante dix wala vingt quinze yooyu nañu jël. waaw dafa tuuti lay wax di wax ne nga état bi nañu ci jàppale ndax ñun ñu nekk ci élevage bi hmm. dañuy soxla ay vétérinaires yoo xamante ni eh, hmm. intervention yi am ci ci suñu gox goxaat yi ak suñu kër yi wala ci région yi sax dañ koy soxla trop trop trop trop euh, seexu ñu gis ni yaa ngi hmm. ci terrain bi di faj xar yi euh, mais moment bi euh, sedd bi fu mu toll xar yu ci bëri dañu socc xar yu bëri seen tànk yi dëng na xar yu bëri moment yi surtout femelles yi mamet gàngiri sonal na leen trop torop torop torop torop waaw mhm. waa xar yi socc nañ xam nga bu dee milieu laadum bi mhm. euh, borom laadum bi ñoom li ñu bëgg mooy sang xar yu bari mhm. te ak seddaay bi ndox bi tamit day sedd tamit dañu jàpp xar yi di sang di sang loolu moo gën a bëri seen xar yi di socc waaw ñoom xar yi tamit en général dañoo fragile euh, seen euh, seen soj yi comme sinusite bi am yoo xamante ne day wàlle am yoo xamante ne hérédité la te milieu laadum bi boo xoolee sang yi gars yi dañ koy topp dañuy topp benn lignée bi te ligne bi xëy na bu amee benn xar bu sinusite après descendant mi dañu am sinusite loolu moo tax soj bi en général du gaaw dañ ci mbaar yi. Mhm. waaw. kon boobaa bi ci jamonoy sedd bi euh, yow boo doon joxe conseil euh, kañ ba kañ lañ war a sàgg ndax parce que da ngay gis ñoo xam ne chaque semaine dañuy sagg ñii chaque quinze jours ñii chaque mhm. mois. man euh, man sang xar moom lu ma du ma ci en général dem naa leen. jar euh, bu ko di gaaw di def. Mhm. mun nga bàyyi ba xar yi tilim ba nga gis na yow xar yi tilim na xëy na un mois deux mois bu fekkee ne sa sa yow sa litière. mooy xar yi fu ñuy tëdd yaa ngi koy changé fréquemment mm-hmm. dans ce cas xar yi duñ tilim lu bari ah, maanaam bi changé paille de riz moo ëpp njariñ ka sang bi waaw moo ëpp njariñ ka sang bi surtout si seddaay bi mm-hmm. nga xamante ne boo koy changé chaque un mois wala chaque deux mois bu la neexee mën ngay toog par trois mois di sang mm-hmm. waaw ça dépend tamit par trois xar nga am ci mbaar bi xam fekkee ne sa mbaar dafa bëri xar litière bi di gaaw tilim xar day gën a gaaw tilim mais bu fekkee ne yow tey ay ñetti xar nga éleveurs yi dañu gaaw ci mm-hmm. dama am visite mm-hmm. wala damay def émission taf taf ñu sang xar yi wala xar yi war na leen a sangaat sang bi dafay bëri torop torop torop yow rafetlu woo ko man non sang bi rafetlu moo ndax sang bi ñoom boo xoolee lu ñu ciy constaté mooy bu nekkee femelle yu ëmb yi booy génnee te léegi bëri yëpp dañ ko karo bu dee xar yu ëmb yi bu leen génnee di leen sang ñenn ñi dañu déboîté si di glisser wala maal yu mag yi loolu moo tax man en général sang bi bëriwuma ma di ko conseil ak soj yi aussi ñëw ci euh, comme sang bi loolu mu ci wax daf ci am solo trop faat kër tey sedd fi mu toll euh, gars yi dañuy jot rek sang jot rek sang te aussi tamit mm. euh, ci environnement bi xar bi di nekk ci sedd bi dañu ci bëri tàggaay bi dañuy bëgg aération mm. am na ñoo xam ne dem ba dañuy taal ay ventilo pour xar yi mën a féex ci mm. boobaa bii milieu bergerie bi nga xam ne fi la xar yi war a nekk nan lañ ko war a saytoo wala nan lañ ko war a mën a toppatooy waaw xam nga instant bi sa dépend ci milieu yi boo bëri da ngaa jege géej bi mhm. dans sa sa mbaar foog nga xaw ko mhm. def couverture nga xamante ne ngelaw bi du dugg bu baax mhm. sûrement soo amee ay mbote yu doog a judd yooyu waa sa dépend ci milieu bu nga bu nga nekkee mais li gën moom ñu wàcc wàññi sang bi tëjaat mbaar yi tuuti nga xamante ne ngelaw bi wàññi ngelaw bi mooy gën waaw nag gars yi nag respecté ñu xar ah nekk nekk ñun comme ñun ñi temps xam nga comme man temps hmm. sedd sangu bi warul bëri parce que ndox mi day sedd hmm. donc ni mu bonee ci ñun <laughs> noonu la bonee ci ci ci ci xar yi noonu la faat nga faat waay ngir yàlla faat dama koy faral di wax chaque jour boo ko waxee ñu leen bay moom xar yee nga gënal nit ñi mais hmm. tey euh, man dama koy faral di wax euh, xëy na moom bi di vétérinaire yi dama ci mën a tey ñun ak ñoom lan moo leen euh, lan moo di wóotele ñun dañuy wax ñoom du ñu wax am na ay garab yoo xamante ni sax ñoom daf leen di faj ci pharmacie UBL lañ koy dem jëlee. waaw kon nga xam ne ñun ak ñoom soreewuñu daal. waaw kon euh, ba tey ay yooyu noonu yëpp day am ci ah. capitaux dëgg-dëgg mooy waral investissement bi génn parce que tey damay gis ni que léegi ñu bëri dañuy sóobu ci li nga xamante moom mooy mbirum mm. càmb gi rawatina yarub yarub xar man damay yaakaar bu kanamee dama ciy commencé dugg commencé bu samay laa du ndaw mais itam vraiment il est à parce que nag vraiment ak akus néew la ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci milieu vétérinaire bi ci def ab liggéey bu am solo mm. bëggoon naa xam bi mun na la woo mm-hmm. ay heure yoo xamante ne xëy na arrangé wu la nga war a génn mm-hmm. loolu day xaw a metti euh, bu nekk kantaa xar yi en xar yi soxoruñu noonu du kom ay xaj wala muus yoo xam ne mu na la maat léegi boo bàyyee sa xel rek xëy na accident du am bu dee sol nga tamit ay dàll yu baax yoo xam ne xar du la dëgg ak yooyu mm-hmm. risques yi bëriwul ah bëriwul y de risques bien vrai ne am na ay feebar yoo xam ne day wàlle jóge ci xar dem si nit mais du ñu feebar feebar yu grave yoo xam ne parfois day jóge ci xar di dem ci nit. Hmm. bëriwu ci alors bala ñoo continuer Mbaye dañuy dalal rek ah Théo qui vient de nous rejoindre sur le plateau l'homme de la banlieue nuyu naa la. Hmm. Hmm. d'accord fey nañ la bu baax a baax lu ñuy am tey ci biir rubrique éducation. ok ñeneen ñi ne nañu moo donc dinañ ci daal di ñëw ci kanam tuuti mbay dañ lay bàyyi ñu continuer ak suñu invité mais man am na aussi lu ma ko lu ma ko bëggoon a laaj ci xar yi parce que man damay faral di gis ay xar yoo xam ne mbay seen karaw yi dañuy ruus dañuy ruus ba nga gis seen euh, seen euh, der yi dafay dafay feeñ loolu la moo koy indi. loolu en général carence lay doon. ok transe lay doon wala xar bi mu bëri ay parasite ay saan hmm. mooy tax mu am alopécie alopécie mooy la fekk karaw gi di wadd ok d'accord des fois tamit nga gis xar yoo xamante ne ñoo manqué calcium ah ay phosphore hmm. dans ce cas ñoom ñooy ñëw di lekk karaw beneen xar bi hmm. waaw ah Euh, tey comme euh, euh, étudiant lañ invité. Hmm. bu teewoo duggee di wax ci jàng bee ah. sa mais mais mais maa leen doon dégg sànq di wax am koy woowee veto. Hmm. école bi c'est une école interétatique. Hmm. donc du kese sénégalais yi ñoo fiy jàngee. moom xam na li ma koy wax. école bi ñu nekk sous région bi dañuy ñëw di fi jàngee. mais seen milieu. c'est c'est spécifique c'est-à-dire que y a une tey ak tendance bi ñu doon am du ñu subventionner surtout seen affaire. Mhm. ñun di xaw a bàyyi en rade euh, laisser en rade. Mhm. moo tax ñoom ñu bëri ci ñoom dañuy dem def médecine générale après. ok moi j'ai eu un ami vétérinaire qui a après viré pour être médecin généraliste. Mhm. donc pour dire que c'est-à-dire que tey ñoom li ñu war a jox. da lay war a surtout renforcer pour par la recherche. parce que la technologie évolue. et race yi comme dañuy développer di def ay croisement de race hmm. donc war nga à chaque instant gëstu gëstu bi nag moyen moo la koy jox et moyen loolu c'est politique de planification chaque fois je répète que un pouvoir un gouvernement qui ne planifie pas hmm. va toujours va toujours être en retard hmm. te ñun loolu moo ñu dal à l'indépendance on se bombait le torse ñoo fi mën ñoo fi mën ñoo fi mën tey ñi nekkoon fii Burkina ak ñoo ñëpp Benin fii lañ doon jàngee si mhm. Rufisque yaa ngi koy fàttali école des PTT yow muy dëkk Tëngéej école des PTT mhm. y avait des gens qui quittaient la sous-région qui venaient ay ba Niger aujourd'hui mais nu nous sommes parce que on se disait qu'on était les plus plus forts mhm. defar li ñu am existant bi yi nga doon wax sànq ci affaire u kii y a les normes domestiques les normes domestiques pour élever ay xar dafa am service d'hygiène bon euh, amatuñu moyen comme avant mais dañ doon def contrôle si kër yi pour xool yow mbaaru xar dafa am nu mu war a séparé woo sax wala ay ngun-ngunu ginaar ak euh, néeg yi mhm. mais léegi tey c'est du n'importe quoi da ngay gis ku la loué sa biir kër nu muy téyee di élever ginaar yi feebar di fa jur nga jékki-jékki gis-gis ay néeg sa néeg ay affaire ay puces yu ndaw wala dara yow xamuloo mu lay jam nga jékki-jékki commencé feebar xamoo fu feebar bi jóge mhm. loolu yëpp mu ngi ci te loolu mhm. l' état doit prendre ses responsabilités mhm. pour ça surtout gën a jëmal formation bi loolu dafay parce que moom laa doon wax nii sànq rek euh, am na ci bëri yoo xamante ne tey jii état bi seen taxawaay war noonu koo mën def ci milieu euh, vétérinaire bi daal euh, tey seexu ñu gis tànk xar yi lu ci bëri day dëgg ci moment bii nga gis gars yi di plâtre Mm-hmm. Euh, des fois bu réussir des fois bu réussir. dama mm-hmm. yaakaar ni nag te yow mm-hmm. gis nañ ay intervention yoo xam ne def nga ko ci bu réussir. ban système ngay def ba mu ba mu ba mu mën a jàll. waaw euh, en en fait euh, bu dee plâtre xam nga lu mécanique la. du loo xam ne sax parfois école dañ la koy jàngal carrément mun na la ci jox ay ay dérive yoo xam ne ngay jaar pour def ko. mais yow par expérience terrain. ci say xar yaay xool nooy def parfois. ba mun a réaliser yooyu bu fekkente yow xar bi tànk bi moom euh, dafa dëng jëm ci biir yow boo koy plâtre da nga koy jéem a fixé pour mu jub xooc léegi côté bu mu dëngee mun nga mun nga ko gën a dëgëral def ci ay bant wala def ci plus de plâtre mm-hmm. dans dina ko téye ci sens boobu mm-hmm. léegi bu ko téye ci sens boobu nga koy génnee si naaj bi di ko jox yenn garab yi dina permettre mu jub ñu ñu réussir ci ay plâtre yëpp noonu lañ ko réussir ko plâtre rek bàyyi ko noonu da nga koy jox am da nga am ay garab yoo koy suivre yoo xam ne da koy naan ak yoo xam ne da koy piqûrer lu mhm. gën tamit muy am ensoleillement mhm. xam nga tey laadum yi comme que dañoo nekk ci biir ay mbaar mhm. des fois am ay ventilo seddaay bu ëpp bi moo tax seen yax yi di dëng ok seddaay bi moo tax xar yi bu seddaay bi duggee la seen tàng bi di jaaree dëgg te borom du ko seetlu borom du ñu ñëw ci Mame Gangiri doon la loo xamante euh, gis naa nga opéré benn xar boo xamante ni sax hmm. benn ween bi na ko effacé ba mu set. waaw tey loolu moo waral di indi feebar yooyu ba met gàngir yooyu. waaw en général parfois xar yi comme tey mun nañ jur mais bu bari si ween bi. Hmm. léegi yow bu dul day am traite fréquente rek nga koy ratt des fois di ko ratt hmm. mais bi day jékki-jékki fermenté wu léegi bu fermenté wee nag après des fois day yàq ween bi ween bi am inflammation dans ce cas nag day sonal xar bi. day rëy di rëy rek yow boo ko dindiwul nag da koy sonal mhm. des fois tamit xar yi bu ñu nekkee ci mbaar yi seen doom yi màtt leen ak tilimaay mbaar beeg yooyu bactérie day dugg mhm. infecté ween bi dans ce cas am cancer mhm. loolu noonu tam lu gën nga dindi ko boo ko dindul chaque fois day sonal xar bi da koy andil ay fièvre muy sonn affaire yooyu nag ween bi di metti des fois muy soox des fois nga jékki-jékki gis ween bi mel ni lu violet. waaw foofu laa doon jëm mm. na parce que avant muy violet dina xonk. waaw euh, dem ba rose. waaw dem ba mauve. waaw tey di ñetti couleurs yooyu yëpp daf koy faral di am. ci bon moment lañ koy éliminer ak ci bon moment lañ koy euh, euh, faj balaa am xar bi di ci daanu. waa en général moom yow yow boo bu dee yow tey yaa ngi seetlu say xar moom it bu koy dugg di nga gis xar bi jékki-jékki tayal du lekk dans ce cas moom boo ko piqûre ay yenn antibiotiques yenn yi mun na bañ a évoluer mais bu demee ba évolué tam xar bi dem ba feebar ba sonn dans ce cas doo ko mun opérer. Mhm. da nga koy faj boo xar bi wér. Mhm. bu xar bi wéree nag nga jéem a faj ween bi. Mhm. waaw lu moo ci am. a ah, ok kon faj xar bi bokkul ak faju ween bi. non tey faj xar bi ak faju ween bi des fois ñoom ñaan ñëpp la fajandoo. mais bu fekkee ne xar bi dafa feebar. ween bi di metti da ngay faj xar bi di fajaale ween bi léegi bu xar bi wéree ba pare nga doogu mun opérer ween bi su fekkee ne ween bi wérul waaw. mais dañu gis euh, Mamet Gangiri yu ci bëri Fatka dafa mel ni temps bi jeex na. waaw man mën nga mën nga Mamet Gangiri yu ci bëri. Euh, hmm. bu rosé la gars yi naan mën nañ koo fecc bu dee ba bëf kenn mënatu ci dara. waaw mamit yi en général ça dépend ci tamit immunité xar yi am na xar yoo xam ne ñoo gën a défensive yenn xar yi. Hmm. am yoo xam ne da ngay gis ne ñoom dañu mun lutter seen bopp man gis naa xar boo xamante ne nekk na ci kër boo xam ne ñoo ñu sax luy Mamet Gangiri. gangréneuse xar bi Mamet gangréneuse na ba wér. bu ween bi commencé di nëb di yàqu oh. léegi xar bi wér na xam nga te ñoom xamuñu ne xar bi amoon na mamit bi kon ça veut xar bi moom lu lutteel na boppam ba wér mais bu nekkee laadum yi en général ci wéral seen bopp barewul ok waaw d' accord je pense que euh, Mbaye euh, li nga xamante ni bëggoon nañ koo xam as néew euh, ci wàllum santé animale mhm. moom Cheikhou daal nañu ko xamale donc mhm. ñu ngi lay remercier bu baax baax mhm. ci yu am solo yi nga xamante ni jàngal nga ñu ko Cheikhou peut-être rek ci yeneen i euh, jotaay waxtaan incha allah dinañ amal occasion nga ñëwaat fi. ñu daal di la bàyyi nga tàggoo. waaw ah, maa ngi tàggoo euh, surtout nag euh, di nuyu éleveurs yëpp. Mm. ndax éleveurs yi nag wax dëgg samay xarit nañ. waaw samay xarit nañ di nuyu tamit au passage sama soxna mm-hmm. ndax tamit si milieu vétérinaire bi laa ko xamee waaw <laughs> ah, ah, maa ngi koy nuyu ah, moom bi di ko jaajëfal bu baax di nuyu frère am euh, Siré Diakité sama frère la mm-hmm. euh, ñun ñëpp famille loolu mooy milieu élevage bi mm-hmm. euh, di ko jaajëfal bu baax a baax gis na taxawaay bi ci nga xam ne defal na ko def na ko ci sunu rakk ji ndax defal ko boppam ñun la ko defal aussi tamit di jaajëfal sama benn frère frère buñ naan euh, Baara Samb ca Kaver hmm. moo euh, ma yónnee bari bi yaa ma ah, gën a xam laayet sop di def affaire la rek loolu Baara